ñaari kiin mu bëñ ba yëng ak mbay jaañ mu faleexe Europe loole bokk na ci li nga xam ni mooy xibaar yi wala yëglekaay yi nga xam ni ah, war nañ leen koo bellil ah, tey jii ah, tombeek juróom ñaari fan ci weeru juin loolee am solo bu baax a baax jàmm ci miim réew tamit ñaa nga koy ñaan bu baax a baax doonu ci wat ci benn yoon beneen bi mooy ah, fere feeña ci tissu yi nga xam ne mooy yomb ta baax jeesneer yoo xam ne yu mucc ayib leen gaaw leen def seen i commande bala moo jeex fere feeña niw luk taalibe Serigne Babacar Sy bi xalifa Ababacar Sy ah, borom fere feeña ak li ko wër ah, ñëw na nag ci tabaski gi préparé leen benn promotion boo xam ne musta am fere feeña musta am Gambie ak li ko wër musta am Sénégal ak li ko wër nga xam ne loolee moo ko fi def di xam ni mooy wàllu tisi xeetu tisi boo bëgg nag am na fi nga xam ni mooy sunu place daanaka jees neer yi mujj génn ci jamono am nañ ko promotion ba maanaam njëgg gars yi dañ koo wàññi ba mu woyof lépp loo xam ne yor nga ko boo taxawaala foofee ci sunu place da nga ko am wala nga woote ci numéro yi am na whatsapp numéro Gambie ak numéro Sénégal bu ko defee lépp loo xam ne bëgg nga ko ci bagage nga mën koo am am na leneen lu ca yokku ay caq yoo xam ne yu mucc ayib ay dàll yoo xam ne mën nga koo solo maanaam lépp nga fële ca ferefeñe gars yi match bi tas na tisi yu baax te am sécurité sécurité ñu mën koo garanti moo leen di xaar a ca taalibe Serigne Babacar kaay yëgle kaay ginnaaw loolu moom lañ koy doole aari kiin mi nga xam ni euh, bëñ baa nga yang daanaka foq rek moo ci des euh, fi mu toll nii euh, fawéer ba daanu na ca Tottenham gars yi jox nañ ko fawéer moo yor cëggal guyam bu ko neexee dem ca réal Madrid Real Madrid moomee nga xam ni sax bu nu sukkandikoo ci marka yëgle kaay waxoon nañ fi ni cent quinze millions d'euros moom lu mënta ñàkk ndax Tottenham loolee la bëgg ci biir taabal ji waaye Real Madrid ma nga koy jaaba jange di def tiktok de jeu boo xam ni quatre vingt cinq millions d'euros jom quatre vingt millions d'euros ñaar yooyu benn ci information yi nga xam ni am nañ ko te segg ko seggaat ko dana ko fëgg ci biir taabal ji essayé ba xam gars yi fu ñuy daje loole tamit dina am solo bu baax a baax ndax kii di aari kiin kii di yëglikaay bi xam la na ni moom moomee moom lan yaakaar ni moom kese moom dong moo mën a remplacer kii di Karim Moustapha Benzema fekk na booba Mbaye Niang mën naa remplacer buteur yi nga xam ni ñoo nekk ci équipe nationale Sénégal gonek sénégale gi dugal na ñaar fukki bi ak ñett ci compétition yi xam ne am nañ ko ah, maanaam ci ñaar fukki bi ak ñett loolee ci championnat bi la ñaar fukki bit ak juróom eh, ci compétition yi nga xam ne boo ko boolee ah, mboole seen beneen bi mooy mooy deuxième meilleur buteur championnat ba nga xam ne ah, mooy bu Turquie loolee di lu am solo loo xam ne gone gi jëf na ko jëf joo xam ne ju am solo la ci équipe bu Aliou Cissé bi nga xam ne iska mën na caa ñàkkati fekk Bouna Sarr mën naa ñàkk bi ndax bal daanaka laalatu ko fële ca Bayern Munich kon ñu koy dolli ñaan tey di ko encouragé gone Sénégalais gi nga xam ne Coupe d'Afrique bu na ci gone yi nga xam ne moo nu ko coppatil Sadio Mané ñu ngay ñëw ci moom ci information yi nu dëng ma